population bu Karang Poste asalaamaaleykum population bu Niombato asalaamaaleykum département bu Foundiougne ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ziyaara euh, kilifa diine yi dëkkee ci gox bi yëpp ak département bu Foundiougne yëpp euh, ñu ngi leen di présenter la grande coalition Aar Sénégal euh, ki ko jiite nekk ci bopp bi ci département bi di docteur Abdourahmane Diallo ñoo ngi leen di nuyu yëpp di leen ziyaara yéen ñëpp waaw di ñëw encore une fois ci jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci département bi ak ñoom Bato ak commune bu Kaarang fas yéene andi ay leeral tuuti ci li nga xamante ne nii ay fan yi yu néew nii ñu ci bëri ñu ngi ci daal di ci wax di xajamal consernant coalition bi nga xamante ne ni kenn ku ne xam na ne crédibilité am kenn natable wu ko ci kaw loolu ñu ngi jàllale kàddu gi ci nga xamante ni mooy président. étudiants yi mouvement bi di Lamine Diouf su ko defee mu yëkkati ci ay kàdduy yu leeral bisimilah Lamine. asalaamaaleykum population bu Caranpass asalaamaaleykum population bu Niobaato asalaamaaleykum population bu Foundiougne mala lamin Lamine di président des élèves étudiants di wax ne c'est la grande coalition Aar Sénégal. ñu di fekk suñu leader boo xamante ne moom lañu investi dans le département de Foundiougne mu nekk euh, docteur Abdourahmane Diallo muy ndawu Kaarang di ndawu gox bi leen di wax ne coalition bi dafa nekk coalition boo xamante ne tey mun nañ wax ne moom mooy coalition avenir te moom mooy coalition boo xam ne tey ñu si bëree bëri dañoo compter ci coalition bi parce que ay kàngam kese ñoo ko sekk surtout kii nekk fii si département de Foundiougne mu nekk euh, le docteur Abdourahmane Diallo muy jàngalekat fee sa université Cheikh Anta Diop mu nekk également formateur à la PASTEF mu nekk ko xamante ne conférencier la aussi te yàgg na di tàggat ndaw département bi di organiser ay conférence kon ñi leen di wax ne population Karang ñu wër ñi di wax ne buñ gañee élection yi dañuy dellu APR ñooñu dañuy wax pour yàq ñooñu dañuy wax pour sos wala jaxasu ñu ak population bi di leen di wax ne APR bu ñu fa génnee yàgg na trop te ñaanatuñ yàlla di fa dellu coalition bi moom mooy coalition bu baax bi te si coalition bi la ñuy yem di wax waa Karang ñoo ngi lancé appel di wax na na ñëpp ñëw ñu jàppale seen doom ñu soutenir ko dimanche incha allah ñëpp ñoo voté à la grande coalition aar Sénégal bu nga xamante ne suñu mandarga gi moom mooy guy gi bu am guy gi si digg bi population bi encore une fois ñu ngi leen di lancer appel man seen doom Lamine Diouf man may wax ak yéen di leen wax ne benn candidat boobu moom moo nekk fii si suñ commune bi Karang Poste luy intérêt Karang moom mooy ñëpp ñëw réunir ñu formé comme un seul om ñu nekk si gannaawam yóbbu ko ba assemblée nationale parce que xam nañ ne bu fekkente ne en de profil la moom moo fi génn candidat yi nekk fii si département bi docteur Abdourahmane Diallo moom moo fi génn. niveau intellectuel am dafa dépassé rôle député kon ñoo ngi lancer appel di wax ne na ñëpp ñëw ñu jàppalante ñu jël suñu doom ñëbbu ko ba assemblée nationale mu liggéeyal département bi parce que département bi dafa sonn te moom kese moom moo mën a yóbbu département bi ci kanam moom mooy profil boo xamante ne tey jii nii moom la ñuy wax changement moom mooy solution département bi jërëjëf. waaw merci Lamine président du mouvement ànd defar euh, Karang kàddu yi leer na euh, defe naa ne waa Karang yëpp dinañ la déglu bu baax euh, ñi nga xamante ne nii ñooy wër di jéem a yàq te ñu di leen dégg ñuy dugg ci kër yi di dugg ci marché yi di dugg fu ne ñu di leen bàyyiloo xel encore une fois que ne benn candidat rek la ñu am fii Karang ren jii te beneen benn candidat bi ñu amat tamit ci département bu funjuñ yëpp ñetti candidat yëpp boo leen xoolee bu ñu xoolee seen profil ak seen jaar-jaar candidat bi gën a baax ci candidat yi mooy docteur Abdourahmane Diallo bu fekkente ne gox yi ci biti yëpp nag ci yeneen communes yu mu wutee Kaarang yëpp ñu ngi àndandoo di ñu woo fu ne pour soutenir candidature am ndax xam nañ ni kii fi nekk di Pape Seydou Ndianko nit ñi ñoo taxawal seen bopp ne doy na sëkk ne dañ ko fee bëgg a jëlee ñu gisee profil boobu nga xam ne profil bu baax la commune yëpp di ko soutenir kon ñu ngi woo ñi nga xamante ni ñoo nekk Kaarang surtout la jeunesse hmm, ak sunu paay ak sunu maire yi ñu bañ a nangu ñu bañ a nangu nit ñi ñëw ci ñoom di leen andil ay tuuma yoo xamante ni ñu ngi koy jëmee ci ki nga xamante ne mooy docteur Abdourahmane Diallo ak coalition bi nga xamante ni moom la jiite muy aar Sénégal ay tuuma la yu tegul fenn te moom bu soobee yàlla bu jëlee kàddu gi dina indi ay leeral yu mat sëkk ci li nga xamante ni moom la ñuy wër di ko wax ci dëkk bi te dara du ci dëgg ñu di leen tàgg tàllal loxo encore une fois di leen wax ne ñu ngi leen di invité ci ki nga xamante ni nii candidat la candidat bu baax la et seen doom la ngeen jàppale ko jàppale Kaarang jàppale Ñombaato jàppale département bi kon docteur Abdourahmane Diallo askan bi ñu ngi lay xaar nga teg yooyu tuuma yi nga xamante ni ñu ngi koy teg ci sa wet te ñun ñii nga xamante ne ni ñu ngi ànd ak yow ak ñi la gëm yëpp xam nañ ne loolu dara du ci dëgg kon ñu ngi lay wax nga jàkkaarloog askan bi wax leen li nga xalaat ci li ñuy teg ci sa der ak coalition bi teg yooyu tuuma. asalaamaaleykum mbokki Karang asalaamaaleykum mbokki ñoom Mbaato asalaamaaleykum mbokki département bu Foundiougne asalaamaaleykum mbokki département bu Foundiougne ñi féete ci diaspora bi ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di bëral nuyoo nag kilifa diine ak kilifa aada yi ndaje tey bi nag ndaje leeral la rek eh, par rapport ak kàddu yi nga xamante ne ñi ñu sëq géew politique bi ñu ngi wër euh, di ko wax euh, jublu ci lenn nag euh, pour jaase xelu nit yi ba nit yi fas yéene def ñu bañ ko def bu ko defee nag dina ci am ñett ponk yoo xam ne ci lañuy tënk yëfi ponk bu njëkk bi nag ci biir déclaration bi dafay laal ci ñëw ki nga xamante ne mooy Mimi Touré ak délégation bi mu àndaloon Mimi Touré nag nekkoon na fi premier ministre bi mu nekkee premier ministre ku ci nekk xam na ne amoon na possibilité dimbale ndaw yi pour ñu am xëy parce que ci li nga xamante ne mooy charte réew mi premier ministre également mën na di joxe xëy ñu gis ne bi mu fi nekkee jàppalewul benn ndaw ci ndawu kaarang ba mu am xëy ci biir loolu noonu nag bu ñëwaatee kaarang ànd ak délégation parce que xam nañ ne waa kaarang pare nañ Eh, pour votel seen doom seen rakk seen jerbaat eh, lenn rek moo leen tax a jóg mooy xajamal liggéey bi mais yàq xel yi di leen yëgal ne eh, toog nañ juróomi at ñoom Mimi Touré ak ñi ñu àndal munoon na ñëw Kaarang mënoon na ñëw si ñoom Baatu mënoon na ñëw ci département de Foundiougne pour inaugurer li nga xamante ne moo nekk projet yi ñu waroon a def mais aussi ñëw. pour jàkkaarloo ak askan bi waxtaan ak ñoom seen jafe-jafe dellu jéem see indi ay saafara mais gis nañ ne juróomi at yi passé defuñ loolu dañoo xaar ba soxla dawal seeni oto mu jaral leen lépp ñëwaat ci askan bi te bi askan bi soxlaa ñëwuñu woon ci askan bi kon ñu bàyyi ne e, ñëw e, Mimi Touré e, ak délégation bi mu àndal ñëwu naxe la ñëw la pour xajamal liggéey bi nga xam ne coalition Aar Sénégal mu ngi ko fiy def ñu naan Mimi Touré ak délégation bi mu àndal la population du département de Foundiougne jël nañ décision que ne changement moom day am ci nii la ci ne parce que seetaan député bu mel ni Pape Seydou Dianko mi nga xam ne mooy seen candidat te ñoom ragal nañ tudd turam ñuy campagne trou Macky Sall ak trou coalition Benno Bokk Yaakaar jublu si manipuler population bi ba population bi voté parce que Macky Sall mooy candidat voté parce que Benno Bokk Yaakaar moo soxla ñu leen di yëgal ne Pape du Dianko moom moo soxla ndombo député def na fi juróomi at liggéeyul ñu garage ba mu njëkkee gis ngeen garage bi ni mel te ministre de transport ñëwoon na fi eh, mu nekkoon ki nga xamante ne mooy maître Omar Youm eh, ministre des infrastructures eh, bi mu ñëwee fii li mu fi jublu woon ci biir waxtaanam daf ne woon garage bi moom dafay toxu dem Gàmbi mais garage bi bu demee bu fekkente ne nangu nañ garage bi mën nañ ko soppi def ko li nga xam ne mooy centre commercial waa Kaarang yëpp jógoon bañ loolu ba am na benn kuréel bu fi juddoon ñu tuddee ko sàmm suñu moomeel kuréel boobu boole woon waa Kaarang yëpp pour ñu aar li nga xamante ne moom lañ bokk tey bu ñu demee ba ñu seen pexe sottiwuñ te ki nga xam ne moo waroon taxaw loolu bañ sotti tey kooku moo taxawaat candidat war nañ fàttali waa Kaarang ne bu pexeem sotti woon ñàkk nañ suñu garage te ñàkkoon suñu garage jamono boobu. et eh, mbu mënoon ñu yóbbee lu bëri rey li nga xamante ne mooy jaaykatu assurance yi rey li nga xamante ne mooy secteur bi nga xam ne mooy bu mécanicien yi mais jaaykat yi ak leneen ak leneen yàlla def na nag et eh, garage bi Covid bi ñëw na ministre ba wàcc na garage ba laaluñ ko eh, loolu dañ koy sante yàlla dileen leen bàyyiloo xel ne moom wax na lu yàggul dara ci benn élément vidéo que ne béykat yi ci àll ba sonnuñ parce que mën nañ jaay saaku ngooñ deux mille cinq cent jënd ci ceeb jamono bi muy neex béykat yi du ñuy jaay saaku ngooñ ngooñ mi jur gi moo ko moomoon candidat boobu mooy Pape Seydou Dianko léegi ñuy laajte est-ce que jaadu na borom kër bi joxe dépense am ka mu jox dépense mu nekk soxnaam kooku yekk yekkalu ko kooku yekk yekkalul ay ganam loolu mooy député bi député bi mooy mandarga borom kër gi moom mooy joxe sañ-sañ kan la député bi di jox sañ-sañ mooy ministre bi ministre bi mooy mandarga soxna boobu mbala soxna yooyu mais ki nga jox sañ-sañ pour mu def bu defee ren fàtte la defaat déwén fàtte la mu defaat ñaari ati kanam fàtte la defaat ñetti at fàtte la waaye waaye bu fekkee da nga ko doon jox pour mu defal la defalu la bu joxe jotaate war nga mën a taxaw ne man bii paa du ma voté ñu gis ne juróomi at Pape Seydou Dianko mu ngi voté ci wàllu ndox te amuñ ndox mu doy wàllu courant amuñ courant bu doy wàllu yoon amuñ yoon yu doy yoon yu baax ñun keroog ñu ngi dem kër Saalum Diané suñu oto benn bi ci yoon bi la paan suñ benn groupe ci yoon bi la daanu yàqu yoonu Touba Murit yéen ji siy jaar gis ngeen nu mu mel ku miin li nga xamante ne mooy commune Diossong xam nga ne diggante Sokone ak Bambougar gis ngeen ni mu mel ñu ngi jóge commune bu Diagane boo leen demee dëkk bu ñu naan eh, Kër Aliou eh, Guèye Jinne dëkk boobu amul courant amul ndox jigéen yi nee nañ même machine wala amuñ ko beneen dëkk bu ñu naan ba dem nañ fa moom it kazalika jafe-jafe yooyu ñoo fa nekk ñu dugg ci commune bu Niassène eh, dëkk bi nga xamante ne moom la ñu naan Kër Malaw jafe-jafe yooyu lañ fa fekk Njóobeen jafe-jafe yooyu lañ fa fekk donc ñu dem ba fi fi nga xam ne mooy Dagga Jéeri ak yeneen localité yi jafe-jafe dong moo fa nekk léegi nag député ba waroon saafara loolu ànd ceeg ministère ya député boobu noonu moom moo taxawaat bëggaat ñuy naqee niti que ne Macky Sall moo soxla Macky Sall soxlawul Pape Ndianko moo soxla donc mbokki Kaarang ngeen bàyyi ci loolu noonu xel xam ne incha allah benn candidat ngeen am ren muy docteur Abdourahmane Diallo yàlla moo ko def nañu nangu ndogalu yàlla Ibrahima sane du candidat Pam Mame Diarra du kandida Gomis du candidat Ousmane Sène du candidat ak keneen ak keneen comme que nag ñooñu duñ kandida te dañ ne woon dañu war a bennoo pour defar Kaarang liggéeyal Kaarang ñu ngi tàllal ñëpp loxo pour ku ci nekk mu jàpp ci dama ne wolof Njaay nee na boo déggee ngay wàlliyaan dafa fekk sa dëkk dafa fe tëggul te nag lépp ñëpp lu ne ku ne da cee nekk lu wolof yi mu ngi ci lu séeréer yi mu ngi ci lu pël yi mu ngi ci lu waa Sambagay mu ngi si lu waa Ñooro mu ngi si lu waa beneen commune mu ngi ci kon mbokki Kaarang seen doom la woon docteur Abdourahmane Diallo moo ñëwoon di dindi kaddu tuuma parce que am na ñoo xam ne amatuñ leneen lu ñu campagne lu mooy Abdou bu jàllee ak bu jàllul day dellu APR mosoo leen maa xamee wax lu amut yàgg naa di wax te lépp lu ma doon wax kaarang fii si sama politique ku ko weddi it ci kanam da nga ko gis te la may wax la dama koy répété waat génn nañ APR bi ñu génnee APR yëgal nañ ko waa kaarang te ñooñu di wër dinaan maanaam APR la ñuy liggéeyal APR la ñuy dellu ñu ngi leen di jox dig daje fan yi ñu jëm semaine yi ñu jëm weer yi ñu jëm at yi ñu jëm bu fekkente ne delluwuñu APR ñu am mat gu toll ni ñëw toog ci télé bi jàkkaarloog waa Kaarang ne leen ne ñun kat dañ doon wut xamuñ fu ñuy jaar Abdou Diallo moo tax ñu koy sosal loolu moo tax ñuy dugg naan Abdou mu ngi fi tey suba mu ngi ci leneen mu ngi APR maki sal lay liggéeyal man su ma naroon liggéeyal Macky Sall damay jël sama responsabilité ne waa Kaarang falaa far élection présidentielle yi 2019 bi ma décidé damay ànd ak moom ànd naa ak moom mais bi ma décidé ne sama ànd ak moom pare na maak ñama ma àndal dañu jël décision boobu te waajuñu xelaatuñu delluwaat APR loolu la leer coalition Aar Sénégal la ñuy liggéeyal kon képp ku ñëw si seen kër yi dinaan Abdou jàll APR la àndal ak leneen ak leneen jàpp leen ne ay kaddu sos la mbokki Kaarang ñaata at Kaarang mënul am député ñaata at Kaarang mënul am DG ñaata at Kaarang mënul am ministre am ngeen chance nag am député boo xam ne day nekkal ñoom nekkal département bu funjuñ lii moo nekkoon kaddu ñu indi kilifa diine yi ak kilifa aada yi mag ñi ak ndaw ñi góor ñi ak jigéen ñi rawatina jeunesse bi étudiants yi ak élève yi enseignants yi ñu ngi tàllal ñëpp loxo ngeen jàpp ci combat bi ba ñu gaji gañek massivement commune bu Kaarang gagné également massivement commune bu Kër Samba Gueye ak yeneen communes yi nga xamante ne ñoo nekk si ñoom mbaato rawatina département bu Foundiougne bu ñu faloog jàmm dinañ taxaw ci wàllu yoon yi rawatina yoonu Missira Toubacouta waaye tamit yoonu Toubacouta jëm fi nga xamante ne mooy Kër Saalum Diané mais aussi yoon bi jóge Jagle dem fi nga xam ne mooy Touba Mouride yoon bi jóge Sirmang dem fi nga xam ne mooy Baria ak yeneen yoon yi nga xamante ne ñoo nekk ci département bi di leen ñun coalition aar Sénégal la ñu nekk ñu ànd nag ci liggéey bi ak madame Dieynaba Touré donc seen doom la woon docteur Abdourahmane Diallo moo ñëwoon di leen indil ay kaddu leeral te ñu moytu naxekat yi xam naa ne suba ak ginnaaw suba di ngeen gis ñoo xam ne ñu ngi wër ci kër yi di indi ay dix mille ay vingt mille di indi diwlin di indi ceeb pour ngeen votel ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk tey te votel ñi fi nekk tey mooy ñu continuer nekk si suñuy jafe-jafe loolu noonu nag képp kuñ ci jox xaalis bu fekkee mënoo mu ñàkk jël xaalis bi jëlal xaalis bi mais bu vote jotee ngeen jël bulletin bii mooy vone muy bulletin bi nga xamante ne am na garab guy gi mooy suñu bulletin beneen bulletin bu ñu leen woon bu bokk bulletin garabu guy gi xam lañ ne du ab Abdou jallo képp ku bëgg a voté Abdou Diallo coalition Aar Sénégal boo demee ba ci mbañ boo demee ba ci bureau ba jëlal bulletin bi nga xam ne moo am garab bi di garabu guy gi nga dugal ko ci enveloppe bi bul kole enveloppe bi après nga dugal ko fee nga xamante ne moom mooy ci urne bi bu ko defee incha allah bu 18 heures bu ñu defee décompte ñu gagné Kaarang gagné yeneen commune ngeen am député fii ci Kaarang bu yewoo ñoom mbaato pare nag pour nekkal département de Foundiougne asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf mbokki Karang